Thank you. dal leen ak jàmm li gën a fës ci yéen kaay yi doore ko ak journal bii di l'observateur xëy dinu indil li nga xamante ni moom mooy coppite doxalin gi nga xamante ni kat ñi di gouvernement bu Sénégal ak ñi ngànk ñi nga xamante ni kat moom mooy ministère de la santé amal nañ ko ci feebar bi di coronavirus ginnaaw niñ ko daan defee bu jàngoro bi dalee doomu aadama ñu génn xamal ñu ko wax ñu doomu jàngoro ji ki ko am fi mu dëkk fi mu jugee at yi mu am ah, bi la yoon kat ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq bàngaas bi la di ministère de la santé bin génnee def déclaration libération dañoo xamal ne ñeenti doomi aadama kat am nañ jàngoro bi di coronavirus kenn kii kat moodu moodu bi moo ko ko wàll ka des ñett ña des kat mun nañoo jàppandi ne bitim réew lañ jógee eh, bi la xibaar moom lañu tukkee fii ki nga xamante ni moom mooy l'observateur ki nga xamante ni moom mooy Sayid Gaye di professeur jàngalekat ca CESTI kat ne woon ne kat ne lii nga xamante ni kat moom lañu def matu ko woon ndax du def lu dul indi tiit njàqare ci askan wi wala ay waay tontonte di ci am seen diggante ñoom ak askan wi Les Échos dañu xamal ne ñeenti doomi aadama yi kat am nañ ko kenn ka Modou Modou ba ko wàll ñett ña ca bitim réew lañ jógee ante ki nga xamante ni kat ñoom ñooy gouvernement bu Sénégal ñu ngi def ñoom tamit seen kémtulaay kàttam ndaxte test yi nga xamante nii dinañ ko def du passé li nga xamante ni moom mooy fukki minute ñu jot li nga xamante nii ñoom ñooy résultat ya Maintenant, ni moom docteur Mamadou Mansour Diouf di réanimateur anesthésiste ci poly hôpital polytechnique bu nekk ca France mu ngi génn di ñaawlu ci l'observateur ci li nga xamante ni kat moom lañ jël jox ko li nga xamante ni moom institut Pasteur euh, bépp test bu ñuy def ak bépp maladie bu nga xamante ni moom la ñu am di xamal ne nag am na laboratoire ak yeneen jumtukaay fajukaay yi nga xamante ni mu ngi fii ci Sénégal ba tey rek kii di euh, Mansour Diouf nekk tamit docteur mu ngi ñaawlu anam bi nga xamante ni kat moom lañ xaalis bi lañ jël def ko ci li nga xamante ni moom mooy feebar bi la coronavirus amul lenn lu nga xamante ni tamit leer na ci leer moom mooy kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite li nga xamante ni moom mooy jàng bi di église bi euh, ñoom kat ñu ngi tànkaafu ñi nga xamante ni kat ñoom ñooy nekk ci église yi di xamal ne benn mees kat dootul amati fii ak jàngoroy coronavirus gi di am ci diwaanu Sénégal te mel ni ku koy feelu ci wet gi ak li nga xamante ni kat moom mooy marché bu jaw jawbe li nga xamante ni ñoom ñooy autorité yi jël leen décision tëj ko démb di xamal ne marché bu jaww bi tamit euh, démb lañ ko tëj Sud Quotidien tamit xëy dikk ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy destination Sénégal ne dañ koy jaay euh, njaay moomu kat dafa mel ni dafa nora lamb ndax li nga xamante ni moom mooy euh, vol aérien nii kat dañ koy dakal ba jëmmi jamono li nga xamante ni kat moom mooy bato ci Sitoé jaato ak bu Agen dañ koy koy dakkal ba jëmmi jamono godi ñay dina xamal tamit ne agence de voyage ci réew mi tamit bu ñu tëjul seeni borom tamit nañ xam ne liggéeyul Sud tamit di wayal li ba tey tamit ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllum tourisme parce que ñu ngi eh, ñaan ndimbal ak njàppande ci gouvernement bu Sénégal ci seen wàll opération tamit xëy dikk ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy ci teg njàqare gi nga xamante ni am na ci àdduna bi ginnaaw bi nga xamante doomu jàngoro ji ñëw ñëw na fii ci àdduna bi ci mois de décembre lu tollook euh, juróom-ñaari junni nit ak juróom-ñaari doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan fee nga xamante ni moom mooy diwaanu Italie ñaari junni doomu aadama ak juróomi téeméer ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan fee nga xamante ni moom mooy diwaanu Espagne juróomi téeméeri doomu aadama ak juróom-ñeent ñàkk nañ seen bakkan fee nga xamante ni moom mooy diwaanu France téeméeri doomu aadama ak juróom-ñaar fukk juróom ñàkk nañ ci seen bakkan fee nga xamante ni moom mooy diwaanu Maroc ñaari doomu aadama ñàkk seen bakkan ci diwaanu Sénégal Sénégal nag ginnaaw bi nga xamante ni am na lim ba tamit dafa mujj takku ba ci fanweer rek benn doomu aadama yi nga xamante ni ñoo amee jàngoro yu coronavirus gi fee ca diwaanu Gàmbi moom ñu ngi doog a am seen benn cas coronavirus. source tamit xëy ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ay milliardaires na ci réew mi feebar bi mel ni am ci réew mi ñu yor seeni milliards nekk ci réew mi nañ génn kat def li nga xamante ni kat ki nga xamante ni moom mooy xalif général kullu murit def na ko euh, di sëñ Muntaxa Mbàkke ak ñeneen ëttu bi di Les xëy tamit dikk ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy xeexu euh, corona virus boobu di xamante ne gouvernement bu Sénégal kat wéetul ci xeex bile li nga xamante ni ñoom ñoo nekk fee ci ville de Dakar joxe na lu tolloo ko téeméeri million ki nga xamante e moom mooy ministre Omar Gueye joxe na li nga xamante ni moom mooy ñaar fukki million ak juróom source a tamit xëy tamit di ñu xamal ne ñu gën a néew te joxe boobu moom mooy député yu jigéen ña nekk fële ci assemblée nationale nga xamante ni toll na ci juróom ñaar fukki nit ak ben ginaaw bi nga xamanteni joxe na lu tolloog ñaari million buñ ko xayma jarul calculer dafa def li nga xamanteni mom moy 28000 francs par député ñu jéxalé ak li gëna fess ci ëtt eh, kay bi ak eh, li nga xamanteni mom moy tagat yaram doore koog journal bi di stade di xëy ne kat eh, li nga xamanteni mom mo warono am ci 2020 di euro ba jënd nañ ko dàqandi ba atum 2021 journal bi di record xey ak ñun ak doomu Sénégal bi di Pape Maïssa Ba nek fele ci diwanu France di yëngatu ci Troyes mu ngi xamal ne kat fi doon ni ñëpp ñom ñëpp kat ñu ngi sous quarantaine dara warulu ko lu doomu jangoro ji di coronavirus mbokk yi ñu ngi rafetlu sen tew ak sen and ak site bi di info réew mi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah